nga may def cérémonie de lancement ci wàllu bëre. yaa ngi dégg. tubaab yi décollé. France. ba Sénégal. comprendre nga. ñëw war a présider yow li ngay def. yaa dégg. prise yi nga xamante ne jël naa jox ko fédération internationale de lutte amateur ñu visionné ko. reconnaître ko. fila te samay création la man maa ko créé. lu ma créé da nga foog ne Pape Cissé wër ma ndomba ma daan ko création kan la. demi sama sama création la maa ko moom. mais mais ndax kon tey jii yow li nekk ci yow nii. nga wax ko lu ñu neex la ñu koy dégg. Mm-hmm. mais tey jii ndax jot roog mbalax créer xool ñaari xale ba ñetti xale yoo xam ne yu am avenir nga tëjoog ñoom liggéey ñoom lu diire pour bu ëllëgee nga mën a nag diw mii maa ko fekk à bas âge def ko nii mu def. non damay damay. waaw question bi dama ciy dolliwaat. waaw question bu am solo la mais dama koy yaatal. man tam ma ah, parce que ñu ngi jëm ci. Dakar 2026. Mhm. y a des jeunes yoo xamante ne dañ leen war a jàngal bëri. leen war a tàggat parce que xale yooyu normalement. Mhm. actuellement ñu ngi war a am ay 12 ans. oui 13 parce que tubaab yi. Mhm. dañuy bu ñuy dem jeu olympique. dañu koy préparer 10 ans. lu yàgg. danay jël ay xale yoo xam ne 12 ans lanam ñu ne ay eh, ñii kat bu ñu demee ba jour ba. Mm. dinañ am 18 ans. Mm-hmm. Mm-hmm. wala dinañ am 19 ans. Mm-hmm. voilà noonu lañ leen di préparé ñun Sénégal dañuy fekk ponkol mu taxaw. <laughs> ñu bëgg la préparé ñu bëgg la préparé yaa ngi bëgg a jël yoo xamante ne ñu ngi fay carrière nga ne leen war nañu entraîner. gis nga yaram. lu ci mën a tegu ba ngay nekk jeune. Ah. ak lu ci mën a tegu bi ngay jeexal mënul ah. bokk nit gis nga mbër boo commencé am défaite ah boo daanee rek yaaw jàll nga daan parce que réflexe yi day deñ mhm. yaa may dégg ngay bëre jeune mu lay daan parce que dafa lay ëpp réflexe du question sax da lay dàq bële mais réflexe ak équilibre lay ëpp mhm. yow say équilibre dafay deñ gis nga ras-ras yooyu ngay gis say tànk wala muy lox wala yu def nii waaw cest yooyu mënoo ko amee réflexe wala mën mënoo ko amee souplesse souplesse muscle moo koy joxe. Mhm. boo dëgërul bu fekkee boo boo trébuché muscle yi mooy def nii. mooy mais boo trébuché te muscle yi deful nii rek da ngay daanu. muscle yi mooy waral ngay gaaw a daanu. ngay concentré wu. oui exactement. <laughs> léegi. wala Fadam wala Babacar question bu ko doon laaj tamit dafa jëra Babacar mu may ñu ko ndax bu tax loolu. Mhm. moom dafa am lu nekk ci moom. te am na loo xam ni ci ay ci jamono bii nga toll ci nga mën a former nit. Mhm. am na âge boo xam ne tey ji boo fa tollee. Mhm. pour nga former ci nit ci cadre nga koy mën. Mhm. ndax jamono jii nga toll nii am nga kàttan boo xam ne mën nga ca former xale. am nga kàttan boo xam ne tey ji mën nga jàpp ngemb. woon xale na ko tey ji nii la ñuy xar jëppitee. ñi la ñuy fàqee nii la defee comme mag ni wala leneen ak leneen. tey ji ci période boobu nga toll noonu. ndax mënuñoo gis rek mbalax créer comme ni Balla Gaye numéro 1 def. comme ni tey jii ñi nga xam ne tey ñoom def ko comme ni tey jii ñoom Double Less def ko créer ay yeneen mbër yoo ne nii ay sources la yoo xam ne bu ëllëgee. académie Rock Mbalakh ah, waaw mais moom au lieu muy créer ça parce que. amoon na pencum hmm. pencum Dakar. écrit ah, pencum Dakar. tey jii xaaral rek am na ay mbër. ah bëri mais attends mais gisuma leen ci arrêt mais que ngay dem actuellement. Ah. mais nga gis fa ay mbër. fu ne bari na si yaa yaa ngi day fekk mu nekk ci période làmb ji dëgg-dëgg wala mbër am combat man mais non il faut ngeen accepter ko lu mu wax nag mais sincèrement parce ñun critiqué nañu nañu fréquentation wu écrit yi Babacar da ngay dem ci écrit doo fa fekk kenn mais faut l'accepter am na écrit yoo xam ne tey jii moom tam nangul ci question am na écrit yoo xam ne ko moom question bi na nga tontu ba léegi tontu ci question boobu ba pare parce am na solo mooy question bi mooy tey jii bu ah, fekkee war a ibbi a bu dara ñun war nañoo mën a gis rek mbalax ne tey jii kii maa ko jëlee à bas yóbbu ko le roi des arènes xale bi maa ko jëlee tey jii ci xamu dara ci bëre yóbbu ko ba jeux olympiques mu jël yenn médailles comme ñi nga am. wala maa ko jël ba mu am ba mu am tour ci làmb ji man avant may avant may doon champion. Mhm. Euh, féete giri mag féete ko mag. Mhm. man maa ko encadré yóbbu ko fas. yaa ko yóbbu fas maa ko encadré jàngal ko bëre wax ko ni ñuy nekkee mbër. ci la daan ay Antoine Baaxum daan ay euh, comment dirais euh, Jos xaw ma kii nu mu tuddati. Euh, non non Lac de Guiers Lac de Guiers Xaadim 2 comprendre nga de suite. ay ñoom Abdou Diouf. giri bi muy nekk mbër xam nga nan la nekkee mbër est mm-hmm. dafa ñëw di ma ñaan dix mille francs mm-hmm. pour dox boobu booy la ma ne ko d'accord naa la ko may. mais da ngay bàyyi ba ñu añ ba pare fekk boobu am na benn tournoi def lañ bu amoon eh, Demba Diop. Mhm. yaa ngi dégg. ñu añ ba pare naan boisson mu ne ma waa mais gars jox ma 10 minutes dama <laughs> ne ko ah xaaral après ñu ànd ma am fu ma dem jël xaalis jox la. ñu pare ma jël benn ngeem ma def sama sac mi may dégg ma jël benn butéel butéelu saafara def sama sac odoo ko naka nañ dem matul sedde mhm. ñu dem ba démb jóg. taxi bi wàccee ñu dugg ci biir bi mu duggee nag mu gis mburu séeréer yi bari foofu ak yooyu mu ne ma gars yi la ñuy def fii fii nga may joxe 10 mille ma ne ko waaw fii laa la koy joxee kañ comme dafa xaw a am ci man kersa xam nga boobu xalifa xalifa saw defe naa mooy def mooy mooy bind kii yi quoi. ñooñu nag ñoo toog ci table yi gars yi commencé bind di bindu xam nga ma daal di dox ñëw ne ko xalifa bindal Gris Bordeaux mu daal di bind Gris Bordeaux ma daal di ñëw Gris ngi mer nag ba toj parce que xam ne dama ko inscrit xam nga mu ne mooy gars ñuy def fii ma ne ko da nga a bëree bëreel ba bu ko defee man dinaa la jox lu ëpp li ma laaj sax amul problème bëreel la yow temps yëpp ñu ngi liggéey di entraîner def xam nga def lépp comprendre nga bi tournoi di commencé. Mhm. ah mu ngem bu dongal yi ma sotti ko saafara <laughs> même bu ko séeréer yi di xool sax dañuy xam ne kii champion la. Mhm. comprendre nga euh, Matar Matar Diouf bu yarwaagoo lu njëkk a dajal. du ma ko fàtte mooy rakku Aline Diouf. waaw yaa ngi dégg. at bi dafa soufflé mu ne ko coppet kepp tànk bi yóotu dorso bi kepp ko ànd ak moom ba final si la dajax góor gi Senghor tournoi góor gi si la ko góor gi waaw si la ko góor gi Senghor daan final. yaa ngi dégg boo bëreegul arène deful dara. mu am lu ëpp 2000. waaye 500000 la <laughs> yow encouragé mais lo mais xam nga lu ma tontu bi ma daggee enveloppe bi. Seck Seck Seck mi ngi foon parce que bi mu déggee ay Gris Bordeaux nangam nangam. Seck foofu la dëkk. foofu la dëkk ci la ñëw parce que si la ñëw ne waa mais yéen lépp yéen boo leen di ñëw di bëri fi dooleen ma dooleen ma tàggu yu demee noonu. Mm-hmm. yaa ngi dégg bi ma xootee enveloppe bi dama jël cinquante mille. Mm-hmm. daal di jox Seck mi may dégg. Mm-hmm. daal di jël man cent mille francs def sama poche. jël trois cent cinquante mille yi jox ko Gris. mu xool xaalis bëri mu ne ma booy man nekk naa lii moom loolu la ma wax daf ne ma nekk naa yaa ko def mbër ci la jógee nekk mbër si. tey jii noo gisee fin carrière am. waaw fin carrière am cest mooy li ma wax léegi rek carrière kon kon. mais non non mais. non bàyyi leen mu tontu sama laaj. non non Gris nekkagul Sénégal dama waroon tontu dama waroon tontu Fodam. non mais Gris dama waroon tontu Fodam. non non Gris nekkul fin carrière. Babacar Gris ci rek. waaw non non fin carrière. Gris Becaye waaw fin carrière. mu jël ci Ama Baldé. dañ koy dañ koy dañ koy gérer. fin carrière. mooy c'est comme le début. waay yaa may dégg. tu rentres par la petite porte. parce que début carrière dafa metti mais il faut sortir par la grande porte. Mm-hmm. yaa may dégg moo tax sport dañ naan ñetti pàcc la euh, le début au milieu et la fin. Mm-hmm. yaa may dégg début bi dafay metti milieu bi yaa may dégg. Mm-hmm. dootoo gérer normal parce que fekk na fekk na nekk. champion bi commencé na dugg invitation yeeg téléphone yeeg kërëb kërëb soxla yeeg ngay dox invitation yi. doo toog tal entraînement ba bari affaire yi topp YouTube bi wala topp euh, euh, TikTok yi. Mhm. mbër yi nag ku ci bàyyiwul TikTok. Mhm. ah li ngay daanu dafay bari. gis nga mbër day laxatu mbër da ngay def comme jéen kay ree yaa may dégg. Mhm. yow yow jéen. tëm nga question as bi kay de. Gris Bordeaux ci fin carrière la jël Ama Baldé. waaw rob loolu foo nga ñëw ci. rob bu loolu a yow. parce que yaa ko formé. maa maa ko formé ah mais xam nga da ci njëkk dugg. maa formé mais wax naa leen fi ñu jaar. waaw déjà. mais mi ngi si ay loxo. comprendre nga yéen kay ñi si loxo yi mu lekk ñoo ñoo leen mën a wax fin carrière am <laughs> mhm. c'est vrai ou faux. Ah. non mais mais mais. ni nga analyser Modou Lo Ama Baldé war na mën a analyser Gris Bordeaux parce que loolu. sa avantage am mais si mu mën fi rectifier avant jour bi. bu dee bu dee am nga loo ko mën a conseiller si xam nga xam nga looy wax ni publiquement du conseil. non non du conseil nga fi Ama Baldé Gris Bordeaux ak am ah, ah. Modou Lô. léegi damay damay analyser conseil damay analyser. waa Gris mu war a que combat bi ñëw combat bi ñëwagul. ñëw na ñëw na non non déedéet ban mooy nga koy yaakaar wala. mais est-ce que même combat la war a bëree ak Gris non non. Euh, loolu da ñàkk yaakaar wala. da ngeen bàyyi da ngeen. non da cee ñàkk yaakaar wala. <laughs> déedéet da ngaa jàpp ne Fass amuñ ay pexe yu daan avant bala. déedéet. non mais kon donc. non man moom man man man sérieusement am naa pexe yooyu. man waaw man sama gis-gis as mooy. sànq da ngaa commencé ne dëgg rek la bàyyi dafa mel ni ñaari booyam ñooy daje nag. ah dafa mel ni ñaari booyam ñooy daje. moo tax bëgg ci wax. waaw peut-être mën na nekk loolu. waaw man ci sama gis-gis. waaw mën na nga eh, ah. ah? ma déggee muy wax Ama Baldé sànq ba tey. Ah. pour man ñaari booyam ñooy daje. non du affaire ñaari. non mën na wax tey jii fi làmb toll mooy. non mais loolu tax Babacar war a toog fii. Mhm. ñu laaj ko ci benn ñaari mbër mu ciy dute Gris Bordeaux man dinaa dund war ba Gris di daan mu ne maa ko yor. léegi Gris daanatul dama la non dama la ñu jaar am na ñu mu daanatul. non non dama la wax fi ñu jaar wala amatoo yaakaar ci Gris Bordeaux. dama la wax fi jaar. waaw tey bu ma doon euh, nan lañ koy waxeeti bu ma doon sëriñ maay. yaay yaay bu doon maa ko jàngal. yaa ko yaay sëriñam. waaw yow kay yaay sëriñam yow li nga wax fii kay loolu laa léegi xam nga donc euh, depuis longtemps nekkuñu ça fait longtemps nekkuñu donc am na loo xamante ne bu la réeree si ni tamit mënoo mënoo joxe ay argument yoo xamante ne bëggaay bëggaay dafa Babacar Babacar Ama Baldé nekku leen Modou Lo nekku leen te da nga ko analyser Rob tey ji yaay suñu kilifa ci làmb yaay suñu mémoire ci làmb lépp nangu nañ la ko yàlla ko yàlla yokk waaye dañ ne la fii moom ay wax a fi am Gris Bordeaux da ngaa gis physique am amatoo yaakaar ne mën naa daan Ama Baldé wala loo tax nangoo ci wala dëkkee wala da ngay bëgg a wax say wax daal jaar feneen wala du jaar feneen ñoom ñaar ñoo bokk koñ non du. non c'est-à-dire c'est-à-dire loolu am na lu bokk ñu. c'est-à-dire gis nga. Bécaye. donc xaar Babacar. eh waay Babacar non non non non question bi laa bëgg mu toog. waaw toogul de am nga question bi Babacar do question bi. voilà question bi toog parce que yow. waaw en fait vous êtes un professionnel de la lutte. reconnu. oui tey. da ngay analyser ay athlètes. Mhm. Modou Lo c'est un athlète. Ouais. Ama c'est un athlète. Mhm. Gris aussi et un athlète. Mhm. te xam nga carrière u mbër wala carrière sportif en général. par rapport nag ak échéance yi ñu jëm ñoom xam nga ban analyse ngay am personnellement ci athlètes yi nga gis léegi nii par exemple un Gris tu dois compétir. ban ban gis-gis nga am ci moom. léegi daal forcé moo tontu moo tontu. Ah, loolu forcé xoolal bu dee bu dee lu ah. positif la mu gagné bu dee lu négatif la mu rectifié ñun looloo tax ñu la invité. ah combat boobu sa rock euh, à la jeunesse. waaw ay ban sens ban sens la Gris am. ci combat dama ko dama ko fii sànq. Mhm. su may expliqué da ngeen xool fi may commencé. parce que li ngeen ma laaj nii wax naa ko. wax naa ko de pourtant. dama ne fin carrière neexul gérer fin carrière. Mm-hmm. il faut nga doon wax naa ko léegi wala il faut nga doon daanaan. non tu parles yow dans le général. mais ñun dañ bëgg ñëw dans la dans la précision dans la précision échéance yu ñu jëm. bàyyi ko mu yegg rek ma laaj ci combat bi nga wax. échéance waaw échéance yu mbër bi jëm. waaw nan ni nii Gris war a gérer combat am. voilà noo ko gisee en général cest à nu mu war a gérer nu mu war a taxawee. et bu nee prix. voilà amaa day dem. yow wóor na ne amaa day sonn non loolu c'est loolu c'est forcé. parce que bu ko deful du du bëre loolu mooy kii yomb c'est combat la bay numéro 2 boo seetloo sur 20 combats 18 combats yépp dafa attaque. dafa attaque day day génn seen diggante mu dal sa kaw. Mm-hmm. yaa ngi dégg kii loolu la am yaa dégg donc du ma fi nekk naan bu doon man la wala bu ma ko yoroon. ngiri am na daje bi de. bu ma ko yoroon. Hmm? nii laay def walla nee. loo dox ah. lan moo ne Fass. non ah. ban problème moo nekk Fass ba mënoo mënoo wax diggante. non déedéet mais mais Fass amul amul benn problème. amul benn xaar ma yàlla ak yow moo tax tey jii dama laa seetaan dama la topp saison bi yëpp. Balla Gaye day bëreeg. Boy Niang nga toog keppar yi man sa émission yi nga def mën naa la blouson ba nga soloon sax bu bula ba nga li mën naa la li nga def yëpp uh-huh. maa ngi lay suivre suba ni Boy Niang mooy daal mais xam nga waa déglu ma rek rek déglu ma <laughs> maa ngi lay topp xam naa ne man mhm. maa ngi lay bàyyi xel dama ne mhm. am na combat yoo xam ne nekkul Sénégal te da ngaa ñëw wax ko mu lépp ñëw nekk lan te ni nga ko waxee noonu la demee noonu lay demee moo tax léegi Ama Baldé mais dama la ciy dolli dara de béga ah, bu génn foofu bu génn ah. du ma damay dugg bu génn bu non damay non dina ñëwaat <laughs> non damay ñëw damay ñëw <laughs> bégaay ah ma ne néew na. parce que nit moom euh, mënoo mënoo parfait toujours mënul nekk c'est impossible yàlla mayewul loolu. mais li ñuy wax rek na say na say victoire ëpp say défaite. wala li ngay wax dëgg nay ëpp li ngay alkazib. yaa may dëgg nit na faxe dundee noonu nit sax warul jékki-jékki sax ne man lii du ma dal. Mhm. boo ko defee rek natt bi day ñëw rapidement. Ah, suñu borom loolu la gën a bañ. waaw waaw. mais dama ne man mbër mu bàkku daanu. maa wax loolu mais dama ne. néew na lu may dee mbër. barke yonent bu tedd bi. du may dee mbër te boo demee doo daan. léegi tey man du ma boo dee mbër waaw mais as nag Drogba la tey dafa ñëw ñëw jàpp. tour du temps non mais da nga ah, koy bàyyi da nga koy bàyyi wax dëggale. non question bi nga xoolal daf ñuy jaay affaire magul làmb. non non question bi nga posé pare gu ma. c'est question bi nga posé da ngay bàyyi nit ki mu développé. non non ba ñu mën a ba pare exactement. wax non déglu ma bàyyi bal la. bàyyi ko mu développé non non déglu ma. déglu ma kii li ma koy laal la ko gën a xam. non kii li ko gën a dégg terminé. lan la non wala béykat yi dalaa wax la arrangé yow. déedéet non non dama bëgg ma terminé après ñu ñu question dafa a am réponse koy bàyyi mu développé nit ñi xam ne non non non ba ko laaj mu conseillé Baye wax ci plateau ko wax. non bàyyi moo ko indi. non man waxuma la de dama ne koy bàyyi nit ki boo da nga koy bàyyi mu développé. loolu mu daaneel waaw daaneel la. nit ñu xam ñu xam li ñu wax lan la. rob daaneel la. Euh, Reug Reug am na combat mënul bëree combat talent un combat déclenchement. mu jóge marché Tilène daal di jaar sama buntu kër yónni benn booy ne ko diw laa soxla mi ngi may dégg ma ñëw xàmmewu ma ko sax yàlla xam na loolu billaahi ma ñëw ne ku may xam nga ñu ne ma borom oto bi ma mu nekk ci gannaaw quoi xam nga mu ne ko wàcceel verre mu wàcce verre bi ma ne ko waa nu mu demee ça pour man daf ma soxla xam nga pour affaire business wala yu demee noonu. Mhm. mu ne ma grand xàmmewu ma ne ko wax dëgg yàlla xàmmewuma la xam nga te yàlla xam ne na xàmmewuma ko daan naa dégg rek xanaa seetaanoo ko waaw non xam nga mu ne ma mais rek man la rek nga man dañ ne ma fii nga dëkk mën a xaaral ma jaar fi rek nuyu la ma ne ko def nga lu nice nag xam nga mais nag yaa ngi jublu ci benn combat nangam ak nangam billaay da ngay daan bi mu demee dafa daan hmm. maa la wax loolu ban combat la du ma ko tudd déclenchement nga wax de nan calculer koog ma déclenchement boo calculer xool di rey. bu Maodo ah, fi am non non eh, ñaar bu Maodo fi contre Elton fi nekk contre Maodo. contre Maodo contre Elton. Elton euh, contre du contre Elton. booy ñaa waaw. booy ñaa ah, waaw bi muy bëri Balla Gaye papam sama xarit la. ah mi ngi may dégg. waaw. Ah. comprendre nga. alaaji déggoon bi may def sama cérémonie de lancement. sur les mille deux cent prises d'or ak mbalax. dama ciblé woon ay mbër yu ma waroon dem waxtaan ak ñoom. yaa may dégg ma daal di woo Boy Niang mu jox ma rendez-vous ma ñëw dégool gàttandu ma ne ma yow lu tax ngay woote. ndaanaan du woote day ñëw rek dugg te yow nit ñi dañoo am xol bu rafet ak xel mu rafet si yow. billaahi loolu la ma wax. mu mhm. ngi may dégg. Mhm. yaa may dégg ma def entretien ak Boy Niang xam nga. parce que def nañ ko si xol bu dal ak xel mu rafet mu wax li mu sentir ci man yëpp comprendre nga man it moo wax li ma sentir ci moom vidéo yaa ngi fi jamono di dox mu war a bëre combat bi nga nga koy ragal ginnaawam bi combat bi amee tension ba mu xawee am tension man maa jël sama téléphone woo ko kar mu jël waa grand na def ça nu mu demee gëj nañ déggante ma ne ko déglu ma mu déglu ma ma ne ko nii ngay def ak nii ak nii barke yonent bi da ngay daal ni may dégg. mais yow combat yaakaar yaakaaroon nga ni Balla Gaye dina daw jël tànk boo Niang. ah mais bu ko jël bu jalu daw loon jël tànk boo Niang day jël ay coups. Mhm. bu mais mais jël bi bañ jël ay coups la aussi ah béykat yi dafa la wax benn affaire. Mhm. gis nga songu mbër boo gis bañ a jël coup la. yenn song yi yenn song yi. waaw kay waaw yenn song yi yëpp bañ jël coup